asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ah, tey nag ñu ngi fii kër guy gi kër ndaanaan kër champion fekk fii Lirou Diane ndaanaan champion monument Guédiawaye fekk fi ki nga xamante ne mooy euh, euh, Ketchup buuse ñambaan ñoom ñëpp a ngi fi ak buusita ndax nee naa leen lu dul jàmm jàmm ko gën te ku ne xam na ne àdduna amul solo njuumte du ñàkk nit doo ngay juum guy gi di nit ku baax comme ni ma koy waxee xol bu rafet la yor buusita tamit di xale bu baax erreur nag mënut a ñàkk ñu ñëw fi nag di dox tànk jàmm ndax ñun ñëpp senegal la làmb la làmb bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul bu baaxee ñun ñëpp la baaxal dañuy waxtaan waxtaanee ko ndànk rek mu daal di jeex ku nekk dellu ci li nga nekkoon guy gi maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw d'abord pël ñu lay ñu lay fay sant yàlla julli jeune sant sama ñaari waajur nuyu sama Serigne Sadia Seck borom digal di senegal yàlla na fi jàmm yàgg ak wér. waaw di nuyu sama papa ak sama yaay maa ngi nuyu sama yaay Waré Sarr bu baax sama grand frère Nas Mambay Teda Bira Adama Yare Fall képp ku nekk Kër Waré Sarr rek maa lay nuyu bu baax di la bëggee nuyu sama koñ fii Kër Fañas Lamine Niass bàyyiwuma kenn ñi xam ne vraiment dañu bëgg guy gi école école école yi Mor Faram bàyyiwuma kenn président bi yeeg vice président bi ñu ngi nuyu ñëpp par si la ñi nga xam ne ñoo nekk ci école bi ñu leen nuyu. nuyu suma rakk bu Siteu nuyu euh, sama grand Lirou Diane ak njamb xóor njambaan buusa xam nga waaw Marley booy fi nekk suñu limee dañuy juum Moussa boobu am lycée booy yëpp daal école école lit ba a ngi fii daal waaw nuyu booy yi bu àndal booy kii dawal ka sare nuyu naa ñëpp daal ma kenn waaw yee nuyu naa ñëpp waaw waaw non yow jox war a ko wax rek man damay leer man. waaw maa lay fay. maa nii rek am jàmm bu baax a baax. waaw sama diggante sama moom di ko sant bu baax a baax ndax maa nii mu nekk suma mag boo xam te ne xam maanaam lu yàgg dëgg la Massa Ndiarème la woon cité Barak waaw chaque jour ma wax ko maanaam dëgg daal moo ñu fi indi. te moom sunu grand la presque ñoo dundandoo lépp guy gi mbapatam ak lépp sama kanam moom maam Balla ak xam nga waaw mu nekk sunu grand boo xam ba si combat moom jaagir jaagir lépp suma kan sunu kanam. parce que maa am na lu ñu dund am na fu ñu jaar mais ma xool ba xool ne xam nga waaw moom daal suma mag la suma grand la te pare naa tey pour ñëw jégalu ko. te parce que xale laa te xale mooy juum. a xam nga ñi lay informer yenn information yoo xam te ni xam nga yàgg maa wax si bërëb bi. xam nga di ay wax yoo xam dana xam nga te xam rek xalalaa tamit moo loolu fëggu ak jeunesse mm-hmm. ak xam rek yaa ma gën xam moo loolu mais moom suma mag la suma grand la waaw di ko di tuubaat bu wér a wér a wér nag si lu xewoon keroog di wax ne maanaam nekkul loo xam te lu ma sama tayef la waaw di di ko bu wér a wér a wér di bëggee buusee xam nga boobu ba léegi bu mu déggee affaire ba mu amee lépp fekkoon na ko fa mais maa leen tuubaat bu baax a baax di leen jégalu bu baax te gis naa boobu ba léegi buusee gis naa tànk yu mu si dox mu Ndiaye woo na ma xam nga gars yëpp ñoom Pape Mama Fall ñoom ñëpp dox si ay tànk yu rafet waaw ba production ñëpp waaw di leen sant bu baax di ñëw nag pour baal suma mag. te parce que imagine toi maa guy gi 2015 ba léegi duñ laale. ba 2022 ban chance la am. diggante boobu noonu guy bu si génnoon àdduna wala man ma génn su àdduna nan la ñuy demalantee suñu dëj nan ah. Hmm. te parce que maanaam lii ne am nii sax dafa baax. te parce que gëm naa ni man dinaa tourné waat toppaat si ginnaawam dellu si xam ne kii suma mag la suma frère la barki alxuraanu karim bu ko neexee dimanche fils de Balla bu ko neexee maa moom ñu ànd ba stade wan sénégalais ni maanaam seytaane moo bëri doole mais def naa loo xam du sama coobare du sama tayef ndax kii suma mag la suma gannaaw ba ma koy def tayu ma ko a ah, xama rek fëggu jeunesse xale laa waaw tey jii bu ma yoon tegoon loxo tamit su ma taxawee te lenn rek laay wax ma tayu ma ko tayu waaw ndax xamal rek mooy loolu man xale laa on vingt quatre ans kon man xale laa waaw mooy loolu di ko tuubaat bu wér a wér a wér. Mhm. Mhm. amati. lii dootuma dootul amati maanaam lii sax dafa baax laa wax. te parce que imagine toi sept ans doo laaleeg nit mooy loolu seytaan dafa bëri doole. guy gi day def émission sax nit woo ma ne ma xam ma yaa xam nga xale laa tamit man bañkat laa moom xam na ma moom ànd nañ dund nañ lu ne. moom moom man duma taxaw fiisa di tagg sama bopp si kanamam te parce que moom xam na ma waaw maanaam moom waaw moom suma grand la daal moom moom moo ma yar barke Serigne Touba su ma su ma déggee sa wax. xale nga nga ne ci làmb bëgg tukki ñu lay nax ne la maanaam. dafa am lu xew. nga mer ci loolu wala. maanaam non maanaam non du cadre loolu loolu loolu presque la rek bii ma jugee woon xam nga gars yi defaroon ma contrat ku ci mel ni Fallou nekk nit ku baax xam ma bëggoon ma préparer ji dem xam nga moo loolu am ku ma woo xam bëgg ma yóbbu mais dañoo dem ba si biir maanaam comme lu ma la wax xelu seytaane seytaane waaw ñii ñi tudd fa turu guy gi ne guy gi moo nekk say dossier ak nas man du ma nëbu man damay wax li nga xam te ne moo am te parce que man dëgg moo fi indi ak fexe nu sama grand ñëw àndaat ak suma grand kii suma mag la barki Serigne Touba Mba kii suma mag la barki Alxuraan ko dama pare pour ñëw ñu nekkaat si jàmm te parce que amul benn sens 2015 ba léegi sept ans maa yow duñu laale duñu wax yenn saa ay rëma ni dalay woo sax di la wax si bu loo xamante ne ndeysaan amul. Mhm. te yow suma grand nga. Mhm. waaw dama ñëw nag pour tuub jégalu pare nekkat sa ginnaaw. Mhm. maanaam soo gisee borom sareet yi ñu fa tudd nii la mafia bi dox ñu ñëw fa dama bëgg ñoom ñu toog ñu confirmer pour maanaam képp ku moom képp koo xam ne mer woon nga guy gi ndax bu sita bis ni ki tey loolu dama bëgg mu gars yi raxas lépp seen xol xam ne kii suma mag la suma grand la képp ku mer woon bu sita ndax guy gi maanaam nga jéggal ma te xam ni kii suma mag la kii moo ma yar barke arxuraanu karam heure la woon mal attendre xam nga coow li bëri na ku nekk génn nga def vidéo mais yàgg yàgg yàgg kii man suma mag lay mos doon mais seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel maa ngi koy jégalu di ko tuubaat te bu bëggee. de dugg ndeysaan si internet bi gis am kuy bind si commentaire naan guy gi lu mu loxo di nga tuub far force far force damay tuub te parce que kii suma mag la barke Serigne Touba Mbacke wallaahi am na solo mm, wax ji am na solo ndax wolof daf na tooñ lu mu rëy rëy baat moo ko gën a rëy monument wu géejawaay baa ngi nii liiru jaan boo gisee tey say rak ñëw juum dellu siwaat jéggalu ci ki nga xamante ne mooy euh, guy gi man yëg-yëg nga ci am en tant que monument bi. waaw jërëjëf maa di sant. Mm-hmm. di nuyu guy gi di ko gërëm di ko sant. Mm-hmm. te sa si bii mu def di nuyu Bou Siteu ndax euh, lii rek lan soxla woon lii rek lan soxla woon ñun. Mm-hmm. lii rek moo lan soxla woon maa ngi ko dégg muy wax ñi ciy dox tànku jàmm boobu ba léegi. man boobu ba léegi maa ngi ciy dox tànku jàmm barki de moo Ndiaye woo naa ko ne ko génnal nga def sorti nga wax nga jégalu ne ko sa mag la da nga yaa juum. comprendre nga ndax sotti bi nga njëkk def dangaa juum kon nag soo juumee gënal nga jéggalu nga def sotti barki dee moo njaay laa ko wax lool mu ne ma dinaa ko def comprendre nga guy gi boobu ba léegi ñoo ngi wax ci lii comprendre nga ñun jàmm moo tax a jóg. man du ma naa feq du ma saytaane du ma fii pa rappaj du ma wax ci suuf di wax ci kaw non non non non du caaxaan damay wax vérité du ma wax ci suuf di wax ci kaw keroog bi affaire bi amee ca jour ba Fatma Dia jël na ma. ca foofu ca ISRA ca ëpp de presse ba. ma ne ko buubu dafa juum dafa juum. dafa juum ndax lii da leen xaj na fi. lu ne mënoon na fee am. te ñu yàlla loolu. ndax ñun tànku jàmm leen bëgg ñun géej wa ñun ñoo bokk ndey ak baay. guy gi buusita rakkam la. ah ni mu nekkee rakku ñeneen noonu la nekkee rakkam seq na lu ne dund na lu ne comprendre nga. Hmm. ah léegi lii su amee dafay nur leen te tey ji moom wax na ko nee na 15 ans ñoom ñaar ñu muy demee nii te loolu lañ bëgg mu deñ mu jeex tàkk tey ñu mel na nu meloon su guy gi amee combat mu mel ni moom moo am combat moom su amee combat mu mel ni guy gi moo moom euh, guy gi am combat. Hmm. ñu bokk ndey ak baay ñun ñëpp ñu seq jàmm àdduna amul solo ñun ñoo moom suñu géejaway. Hmm. bu bu xajal kenn ñun ñoo moom suñu géejaway. géejaway si la géejaway si la bégee. comprendre nga ñun jàmm la ñuy wut lii tey dañ ko rafetlu suñu xol dafa sedd ñëpp la seen xol sedd ñëpp la seen xol sedd ndax lii mooy àdduna lii mooy àdduna ndax keroog li amoon fee mënoon na jur leneen ak leneen ak leneen comprendre nga waaye nag yàlla def na ci ndox mu sedd yàlla def na ci ndox ndax maar la nga ne moom it ñoom ñëpp tout lii tax ñu woo ko mu daal di ñëw ndax keroog moom it xañ na xol yéeg na. Hmm. comprendre nga keneen ak keneen yéeg. Hmm. moo tax ñu woo leen ñu daal di ñëw ñoom toog ñu xam ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak ñoo bokk géej way àdduna amul solo. Hmm. ñi rakk yi nañ jox mag ñi mag ñi delloo leen ko. ndax àdduna amul solo. ñoo ngi jégalu nag ñoo ngi ci tuuti di saytaane di wax di. fii par rapport non dañu wax non non déglu ma. lu lii version bi lu ne après lii ba mu amee lu nekk dégg nga ko. Ah. lu nekk ñun ñoo moom suñu géejawaay ah. Ah, ñun kenn doon nangu kenn yàqal ñu ko duñu nangu kenn dëkkul géejawaay pare diñu waxal wax ju ñaaw comme la xewee ñun ñëpp ñoo bokk ndeg bàyyi mm. ñii suñuy rakk lan ñii suñuy doom lan mm. nga mm. ah àdduna solo moom mii sama rakk la sama doom la fu ma gis père la may wooye lu mu xewle su ma demul maa fay jiitu mm-hmm. comprendre nga mi barki de moo njaaloon ngénte ñëwuma ca tudd ah, sama rakk la man ñoom ñëpp jàmm laa leen yéene ku ci xewle man yëg ma damay ñëw man ku ma yëg ma yëgul ku la yàlla nanu yàlla defal jàmm te musal ñu saytaane at làmmeñ ñun géejawaay ak baay yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla suturaal te musal ñuy cat ak làmmeñ ki xam ni nag lépp fa la xewoon di suba muy am combat muy bëre muy euh, Fils de la ñoo ngi ñaan yàlla yàlla may ko ndam ñu ñëw géejawaay feetewaat ko waa altine Baye Mandiaye ñëw yàlla may ko ndam jërë ngeen jëf nuyu naa ñëpp am na solo léegi dañuy ñëwaat dañuy ñëwaat ci dañuy ñëw ci guy gi dañuy ñëw ci guy gi ndax guy gi dégg nga sarak li mu wax te wolof daf ne tooñ lu mu rëy rëy baal ma moo ko gën a rëy tey lan ngay wax sénégalais yi ndax keroog bi situation bi amee sa xol jóg na ni sa xolu rakk jógee ban yëg-yëg nga ci am lan ngay wax sénégalais yi tey. kii bi santaat yàlla bu xol bi tooy na ndeysaan mënul dem kii moo tax. xol bu rafet. rakk jooy nañ de. waaw c'est normal. Mhm. seen xol moo fees seen xol moo fees lii la après ku nekk génnal nekk sa xol mu jeex ñu bokk ñu mel na nu meloon ñu bokk ndey ak bàyyi seq jàmm àdduna amul solo àdduna bi dafa jeex ba pare. Mhm. dañ ko rafetal àdduna amu solo. ayca guy gi. dañuy sant yàlla wér. Mhm. jur bi. santaat sunu ñaari waajur. gërëm ñëpp. Euh, buusuma rakk la te damaa xam ni li nekk suma xel xamoo ko te damay dégg muy wax naan guy gi def ma teg bët comprendrewul sax tey rek maa ngi de déggante ku ñu wax magam bi nekk góoraa xooma ki nekk Espagne kooku problème bu njëkka moo moo ko fekkee damay gàttal rek xuloo dafa mer. moo tax ci ay sorteem laay sukkandiku du ma ko tontu. parce que man bi problème bi amee histoire bi. man du ma woon nii ne ko nañ dem scientifique bi. ñambaan mii luñ xuloo xuloo du bàyyi ba fenn da da ngeen wax mu leen ne kii moom rek mën naa xeex xeexam mën naa bëri bëreem. chaque jour buñ toogee li mu wax lépp damay fekkaat ci man. wala buñ leen kii dañ koo bañ mu leen combat bi bu demee day daan yéen xamoo leen kii. wala mu woo ma ne yow nit mun laa gën a mun a nekk kaw kaw jóge ci bi ñëw fi am lu kii am ay mbala yoo xam ni chaque jour dama koy seedal ba barki démb dara bi ma koy jox téléphone dañuy waxtaan ma waxtaan bu yàgg amuñu problème mais yoo xam ne nii bëgguñu ay nit ñuy ànd man bu maa li tax man ma jàpp ko moom xamu ko ba tey combat Boy Niang bu fii la dawee ba Ibamar na ma boo bëggee bakkan ma jox la ko nga daan. loolu loolu lu ma buur defaat ci àdduna du ma metti te moom fàtte na loolu. Demba Diop Demba Diop daw ba daw na ma bakkan bu fekkee dafa laaj bakkan nga daan estaat oto oto bi la tiim di daw ba ba ba ba xam nga xam nga loolu. bu la ko nit defee tey bu nekkee ci erreur def na ko rek mais bañu la. yaa ngi dégg problème bu njëkk bi man du ma woon ko ñu dem signature. man man dama salteel a salteel ñi ma xam ñëpp xam nañ ma du ma sax dugg ci yenn détails yi defe naa ne ñi ma xam dëgg ñi ma xam dëgg Pikine syndicat Malick Ndiaye 37 fou bi ñuy rey magu Ziza bi xaw magu Ziza bi ki nekkoon sandika defe naa mag ba xam ni jaayam mhm. boobu tout tànk la ay détails su ma ji indee sax mun naa am dekki leneen loo xam ne warul dekk mhm. yàlla def yàlla sàng ma sutura yiir ma ba teg ma ci yoon boo xam ne yoon siraatal mustaqiima kon duma mun loolu bu sama rakk di dugg yenn yi du ma neex duma neex damay xam fi mu jëm baaxul lu garaaw nga laa lay wax man bu dama ko bëgg ba dama ko ruus moom moom xamul mais bu day jàppale ruus ak ragal walla ruus ak bañ a wax sa soxla noonu dama ko bëgg ba dama ko rus parce que ni ma doon taxawoo ak yenn détails yi ñu doon séq man ak moom mm-hmm. problème bi am ñu dem signature ba ñëw man maa jëloon oto bi sama oto bi mm-hmm. doon bëgg mbëkk Falaye Balde parce que boobu dafa jël jaas di di di kargaay yi Falaye mm-hmm. ci laa mujj wàccee oto bi parce que man chaque signature ñaar rek laa xeex te ñaar yëpp may nekk ci kanam du ma arrière ku dul bën doo fof nekk 150 kilos doo arrière kon boo dawee rek da nga yeb sa yow ñi àndal. Hmm. maa nekk ca kanam vidéo yi du fen xotti yére bi sama ginnaaw la nekk safara nekk sama kanam booy bi boloo nekk sama kanam ba ni ba ni xeex bi jeexee muy Ama Baldé bi ak beneen bi. Hmm. beneen bi Ama Baldé laa génnal jaas yi mu ne ma fu foo koy def ma ñëw benn bis ñu ne ma Ama ragal mais Ama du ragal de génn naa ko jaas maak moom rek ak yàlla kon ñaari xew yi maa xeex ak booy néew ma xewuñu ko nag coow bi jeex je fekk ma olympique boobu maa ngi pare combat mun ma jàpp nañ bu affaire yooyu boobu maa ngi mer ma saaga ko mais bi ma dalee moom doo ma bàyyi ma fen bu dul dëgg na du dëgg mais boo meree rek xam naa mer ak yenn influence comme ni nga ko waxee influence yi ñu koy jox ah, ak non ak yi ñu koy jox yi ñu koy jox ñu dem ci guddi gi mm-hmm. avocat bi bi kiil njambaan njambaan mi dóor na fi benn zimi dóor yi métti moom mii maa ko jël avocat avocat boobu moo ko pela del mu ngi yoroon fay quatre cent cinquante mille mais après ñu yor cent cinquante mille jox ko di dóor daxeeg moom bu penam mënoon na cee tëddul ëpp de deux mois du ma bàyyi ma fen mi ngi nii ma taxawu ko li ma séq ak moom sax ak kilifaam du ma ko parce que garaawul daal te xam naa mer moo tax muy def loolu ma dem fekk biir 100 mètres visite directement nii ñu toog ma jël 50 000 jox ñu kenn du fi jël xaalis am na benn boy bu ñuy wax bàcc sama benn booy bàcc sàmm ñoo denn ñoom ñaar. Hmm. ma jël 25 000 may bàcc bu ne ma eh grand frère demal yow amul problème. mais bi ma ñëwee nekkuma. Hmm. far yàlla muy pare combat bi un mois deux mois ma dem fi États-Unis ñëw. Hmm. mais bi ma ñëwee bu lim lim def sax nit mën na ko defloo keneen beneen journaliste du ma tudd turam du tooñ. moo topp bu tey laa doon seetaan vidéo bi. naan ko yow nga ni guy gi yow lu mu wax ne ko yow guy gi yow pousse ko ba booy bi ne comme que combat bi dañ ma écarté hmm. dama xam nga commencé wax hmm. te combat boobu njamaan dama bàyyoon fen dañuy buudu entraîné parce que moom day ànd ak Siteu ak safara xom dem di bàkkoog yooyu maa ko woo téléphone foo nekk ma ma ne ko quatre heures naa la fekk école ba mu ñëw ma simmi ko ak moom contact ak moom hmm. est-ce que da nga fi ma waxee. ma bàyyi mais après di déggaat bu gars yi di wax ay information yoo xam ni bu jekki-jekki di wax ma ne man bu man naa lay def ba jot bu bu génn ci. ñi ñii bëgguñu kenn. xanaa xamuñu saako weer jaar na fi ambulance jaar na fi. njamaan dafa fi dem benn bis dafa ma wax bu am solo. njamaan dana ma waajal ma ne ko mënuma yee saako weer lañ nekk yaa ci topp waajal. barke alxuraan karim. te boobu sa tur la xam naa fàtte na ko waajal. te li wax moo am. léegi bu comprendre nu moom succès am am na ñoo xam ne mënuñu koo comprendre maîtriser ko mais faaw ñu ni ko guy gi bëggulu guy gi nang guy gi nang nga écarté ko guy gi am ak moom séparation sa succès yàqu tuuti ñu ni ñaw xamoon nañ ko est-ce que da waxee mais léegi moom nag comme que fa la toll fugu boobu mënu koo maîtriser ak yeneen yeneen yoo xam ni nee na ma jënd naa jaas yi yow yóbbu ko signature xam nga mer rek laajal njàmbaar man du ma jëli jaas yi jox kenn non non xaar xaar xaar damay leeral rek mm-hmm. boo gisee ma leeral lii dama bëgg xam moom am porte de voix la mm-hmm. dafa mer di wax d'accord waxam fi muy àgg kii déglu mun na faa bañee ko ñu xam ni mm-hmm. mer moo taxoon muy wax ma leeral comprendre nga ay détails xam ni xam nga dafa jëndoon jaas yi jox gaa yi non non man du def loolu signature boobu maa ni g du ma ba man la ku indi poso doo doo dem doo ma topp lépp rek ngir bëgg jàmm am fa mais ci gàttal daal su ma doon su ma doon lu bari duñ fi jug def na ay erreur yoo xam ne nii yow erreur yoo xam ne ay communication su bu waxee ba pare guy gi fu mu jaar deram dafa set. te bark alxuraan bu waxee ba pare damay tëdd sama néeg jooy xamul tax ma jooy xamul fi ma ko def lenn coxor bu fanaanoon ci man ma yéene ko ko moom est-ce que léegi yàlla yàlla na accidenté yàlla ba ma ko wàcc man man xaw ma fu ñu soxoree gis nga gracier yi gars yi tabax. Hmm. xam nga lan moo tax tabaxuma ko. Hmm. joxe buuse mooy seeda loolu mii nii maa ngi moom ñoo doon ànd. Hmm. man dama daan joxe ba mu gi moom ma ne ko dama ngay lijjanti indi mu dem ci laay ma ndaw lijjanti indi. kon moom xam na li may wax. kon man amu soxoree nit mais nit ki di nga toll foo xam nii yii mënul ñàkk. parce que après da ngay xam da xam. bi may déggante ak magam bi dañuy waxtaan wax dëgg joo xam ne nii barki alxuraanu karim man ko sa waay yow laa doon wër de parce que ma man bu paree man dinaa jël ko ordinateur waxtaan ak moom tamit yaayam bi ma ko jot téléphone sama àdduna daa toog daa coupé ma jooy mhm. man ko sayer mag la buu du ma ko def dara te bu ma ko doon def dara moom xam na sayer xam na ah, kii xam na mhm. fi ñu jóge léegi buusa dama ko ne dama toogee parce que ñoom comprendre ñu ba tey comprendre nañu ba tey mhm. te bëgguma la ko gàkkal. kon defe naa ni kii man maa ngi vee ci sécurité maa ngi vee ci liberté am. ñi ko seq nañ xam nañ. mais du lu ñu wax comme ça presse. mais man ak bu amuñu poroblème mais comme ni mu ko waxee. influence xaw ma influenceurs yi. Mm. nga la nañu bàyyi ñun géej waaye du bu rek lii sa sa mu leer. njambaan miy toog tey ay ay am lisé ñoom maar la ñii ñëpp man maay seen mag te man léegi ma génn abal leen mais ku toppiwul doo am cër man damaa topp saa kajoor ba damaa topp saa kajoor ba nit ñi naan ma xanaa dof nga bi ñuy nekk suñu digg digg problème njambaan la ma ne ko njambaan ma ma ne ko maa ngi yeew xar bu trois cent mille saa kajoor laa ko jox mu njambaan boo ko joxee de dañ naan nag léegi nag ak xar mu ñuul mii xam moom ni mi mbalagee ni lay waxee dëggam daan ak xar mu ñuul mii dañ naan nag léegi nag feebar bi yow la mais imaginel loolu tey na xel da nga daan tekk parce que boobu problème bi mi gën a métti mm-hmm. nii la ma ko waxee ma bàyyi ko bi si wax ak saako yor war ko saa am na xar bu la bugg joxe jamal moo ne ma boo la ko joxee nag lu muy def loolu. pour ay détails yoo xam ni dañ koy dundaat même bu léegi bu ñu waxtaanaat dañuy wax loo xam ne lu passé bu démb tey loolu lay bañ mu dal ko. loolu bañ mu dal ko. xa xanaa woon ni xanaa woon ni tey émission bëggu moon def mm-hmm. mais noonu dama lu mu bëggoon a leeral tuuti rek. li bu sita doon mer di wax mer moo tax muy wax mais guy gi du jël ay jaas yi yóbbu signature guy gi du dina defal naa rek guy gi du violence maa moom li ñu doon séq moo ëpp li muy wax ni moom man maa ko xool bu Siteu istilam neex ma Malick sama du ma bàyyi ma fenn Malick ma leen Massa Ndiaye am na mbër jour boobu Malick maa ngi moom de débat la moom bu doon bëre damay jara man ma dem supporter ji parce que moom ni muy ñëwee ci làmb calli calli ji man loolu man loolu moo ma neexoon. ba tey loolu moo ma neexoon. loolu ah, euh, euh, euh, la la wax ko dégg naa la nga naan ma bomb. <laughs> dé démb dégg démb dégg naa la ah, dégg naa la nga naan ma bomb. <laughs> Ah, <laughs> waaw mais waaw waaw. waaw mais booy ah mais boy ah, affaire bi de yàlla moo ne woon tey nii la ñuy def rek ñun ñëpp vraiment kenn ku ne xam fi nga war a fi nga war a féetewaat quoi comme li ma leen wax rek. waaw dafa ndànk da ngay téye téyeel fii def benn match may leen may leen booy benn match bu ndaw yow nga football fii man ma football fii mais leen laa lay xamal waxal naa ko dinaa ko waxat billaahi wallaahi taala benn capitaine mooy am ay mbër maa man lu ma koy bañal. boo gisee chaque jour du ma tontu bu musul def vidéo ma ma bu vidéo yi mu def 67 vidéo la ci man 67 vidéo moo nekk ci télé SBR xam nga tey problème bu amee rek da ngay teg mais 67 vidéo la sànq buse di ñëw fee rek fi ma fekkoon foofu rek mooy docteur ñu na xoolee vidéo lépp 67 vidéo la lépp man la lépp mais du ma tont xam naa ne li muy wax mer tax muy wax. ak comme ni kii wax dañ la bëgg te duñ jot ci yow. mais ku ma xam man ku ma xam xam sama mbapat fi ma jaar xam li ma daj man maa kii ñoo na bokk tëdd ci man laa bu ndaw kii moom moom wax na ko moom xool beneen sànni xeer bi bi sànni xeer nee na. moom lu jëndal deux cent xooma la loolu rek lay lekk bu ma ñaaw la mel maaru ba xam naa ko maaru ba waaw maaru ba non maaru ba xam naa ko maaru ba mooy jaay fonde waaye yàgg nga lekk fonde de. waaw wax nga l'essentiel bi nag bu ñu ñëwaat ci détail. wax nga l'essentiel bi. l'essentiel bi li ñu bëgg a dégg loolu xam nga tey moo naan tey xaw ma maa tooñ maa la boole kii tooñu ma. tooñu ma. xam nga tooñ mooy ko séq dara loo xam ne tooñu ma. dafa juum juum day am. moom dem na ba ni man damaa juum. tey bi may waxtaan ak magam bi tey man li ma waxtaan ak moom sax moom dina comprendre ne man mii. am na fu ma bëgg mu àgg fa muy moom muy sayar man mag ji dafa wax ma ne ko man ci famille bi laa bokk bu xamul ni ci famille bi laa bokk bokk ci ñëw di wax di mbar non li ma def mooy ci famille bi laa bokk yaayam bi waxee dama ko mel ko pel téléphone bu ci jàmm rek lay nekk te moom xamul nag yaayam li may déggante grand dama wax sa waaye dinañ naa woon ci kanam léegi day sayar bi ma wooyee bi ma waxee dama ko sa bu fi ñëw dana ma dama ñëw ci yow loo bëgg mën ma noo buusa man kon jeex na buusa ma rek la dinaa wan sama la loolu ci moom ci ci des mooy te yàlla may na ko xale la mais buy génn day génn mbooloo yàlla may na ko xale dañ koy déglu mais bu mu yàqu loolu yàqu loolu mooy ñu lay jël di leen dugal ci loo xam ne te ñooñu bu doon ñoom duñ ci dugal seen bopp wala seen bokk mm. te guddi ku la ne da fit moytu ku li na nga am fit am fit gi xam nga lan la li jënd sa combat jàpp benn booy ci arène bi dóor ko ba mu ne bët loolu mooy fit ku la dugal ci leneen barki seen naam deux jours yi yow war nga xam lépp ñëpp ni tekk arrière maa woo téléphone ne la ana ñu doon wax nga ne ma gisuma kenn loolu rek firnde la te man nag doxewu noonu man dama bëgg bu problème amee li may wax man ma gëm ko man li may wax ma gëm ko kii amul ma ko jàppal su ma ko jàppaloon du ma toog fii su ma ko jàppaloon moom xam na man xam naa Zaro ni xam na Fallou Ndiaye xam na Pape ma tamit xam na di dox ci lu rafet nekku moon fii sama bëri dama xonq nii ak pompaga bi ma nekk moo tax ma xam na fii maa ngi nelaw bu xam na fi ñu nekk fi fi ma nekkoon mais bu ma tëddoon tey rek naa demee neneen te boobaa man la ñuy màpp nelaw bu ma gaare sama oto nekk samay science boobu. li jënd problème bi. toogee ak ak ak côté. Hmm. wala dafa am ñoo xam ni tey buñ lay conseillé wala buñ lay wax dañuy wax loo xam ni sax comprendre bi. Hmm. des fois ñëw ci bu dégg guy gi parce que vidéo bi hmm. bu ko defee rek bu aggravé woo te kooku ki la gis nga vidéo bi mu soññoon ci tànk guy gi da koy fomp daal la guy man booy yi may àndal barke alxuraanu karim booy boo xam dina wax ci Boury Sy ku dul Boury sax du ci wax kee moo xam sama jikko kee toog ne borom mu yëre Boury lii kii lu mu la wax ci Boury kii dëgg ko laaj ko ndax sama kër nit dina foo toog di jëw nit ko ndax dina fi toog di jëw amul parce que ki lay jëw moo la yóbbul waaw indi ki indi moo la yóbbul mm-hmm. du ma ko def man kilifa mar la mii barki démb ak affaire amee. Mhm. da nga da nga naan kii tuuti mu lekk bu Siteu. Mhm. mais bu toogee maag moom. rafet lay wax. du maanaam kon bañu ko. loolu mooy nit. Mhm. parce que li tax mu def loolu bëggu ànd ak Bou Siteu ci naa féq Bou Siteu di dina ci loolu. yàqula yàqula keneen. léegi Bou Siteu bu gindi koo dina ne kat bi ma nekk ko ci jafe-jafe ah maa la nii la doxewoon kon kii sama dina naa ko téye. booy téye ci ay nit boole ko ci waaye ku naan la non gaynde kii nandal bàyyil bu ñëwee dama koy defaral fii kenn du defaral kenn kii kenn defaral kenn xam nga tax man kenn defaral kenn bëri na ñoo xam ni dañuy dugal ci dara toog daa billaahi ñooy toog di wax si yow te bu ma doon leeral buusi day jàpp gémmiñam léegi message bi jàll de no xaar day jàpp gémmiñam mais hmm. kii du ma dugal boppam ci loolu xalaatuma ko ci àdduna dama xam ne ma dugal ci boppam hmm. def kat pendant carrière bu baax. comme ni guy gi def mu am lu ko ëpp. mu am lu ko ëpp. man loolu laa koy ñaanal. bu nga nettee ci guy gi xam nga jikko yi guy gi guy gi melul noonu. moo a bu la nga ni noo moog nas ñoo kii ma eh bu si te def de heure de. non non loolu ay fo ay fo. c'est bon c'est bon guy gi guy gi guy gi c'est bon wax nga la sa c'est bon waaw ci lañ ñëw njàmbaar bi jërëjëf parce que parce que lii dafa rek la yooyu dafa war a leer. pël jeex ñu nekk ci jàmm. pël pël lii dafa rek la yeneen beneen problème. jàmbaar moom daal jàmbaar jàmbaar yaa ngi dégg yaa ngi dégg non non non jàmbaar ñun liggéey